la la la

bisimilah sëñ Abdou Mbow mën naa woo nga xam ne moo war a tontu programme bi bi mën na ci base bi sëriñ bi jël ci soññi ñëpp kon sëriñ Modou naa yegg si ci base bi sëriñ mu ne foo mu nekk daal mën na yegg si feeñ si yéen si liggéey bi

commencé الله الغر الميمين حمدا لمن يغفل كل ما أراد لقوله كن فيكون في المراد حمدا لمن يغفل كل ما أرى لقوله كن فيكون في المراد حمدا لمن يغفل كل ما أراد لقوله كن فيكون في المراد حمدا لمن يغفر كل ما أراد لقوله كن فيكون في المراد وسيلتنا إليك محمدك الجليل مدعو النبي المنتقى ساد إلى بيت إلهي نازل وحي بالإله بك لله سورا ساد إلى المدينة منورا محمد صلى عليه الله مسلم البدر لنا waaye nit nit rekk mooy mbokk mi ko mënal ci bisam lu mën ndax kenn ku ne ci ñun am na lu mën ci bis bi lu mën a moom mënul am na it lu mën a ñaan loo xam ne xëy na yàlla mën naa nangu euh, ku mel ni man bu ñaan it yàlla bañ ko nangu ndax euh, man moom kii rek laa maa bokk ci gaa yi nga xam ne booy yi nga xam ne tubaarkàlla waaye daal ñu ngi ñaan leen fi jàng ci xasaay ak alquran yàlla moo xam tey yàlla wàccee barke bi ci kër gi wàccee ci dëkk bi waaye wàccee ci nit ñi la sëñ Tuubaa waxoon it euh, keroog bi ko maam Cheikh Anta fekkee feeja ca euh, euh, feeñ na ci jotaay bi ndax sëñ Tuubaa ci Gabon dafa wéetal yàlla ba yàgg fa lool maam Cheikh di ko wër ba fekk ko Gabon mu ko fekk mu mu doon ñax àll boo xam ne ñaxu kese la maam si Anta di fàkk ñax yi di fàkk ñax yi gisub sëñ Tuubaa ba yàgg mu yëkkati xasida ñu yëkkati xasida sëñ Tuubaa ne tëll daal ne seex mu ne ko waaw mu ne ko bismillah maam si Anta ne bi ñëwee bi ngi fekk sëñ Tuubaa kawar daa ngi bare bare bare ba dafa dafa ci mbiri si di di génn nee na wéy dafa gudd ba ba leew ci yàgg gim yàggoon foofu ci Gabon nee na bi ñëwee mu ne ko seex mu naa mu ne naa fi ma fi ma ndax wéetaayu jaamu yàlla fii laa ko mën a maam si am ne ko mbàkki jooy ba noppi ne ko mbàkki mu naa mun ne ko def ndax tubaab bi ku mos a dajeel faatu nga soo fi desee tubaab bi bu ñëwee dana am ndam ci noonu dana wax ne Ahmadu dañ ko faat kon mbàkki ñaanaatal sa borom nga delluwaat fële ci senegal ndax nit ñi soxla nañ fa lool sëñ Tuubaa ko mu jël seex ma laaj ko sama borom sëñ Tuubaa nag xamul fu boromam nekkoon waaye sa borom nee na nangam waaye jox naa ko wax naa ko ne ko na nga ma fexeel wax ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasulullah bu faatu na tàbbi aljana te it na nga ma defal sama taalibe yi fu ñu toog di ma waxtaane def naa jotaay bu ko muy laylatul qadar moo tax suñ tubaane makkin wa wazi wa mugzi an bi tawsiatin ka laylatil qadri ahyaanan fa ahyaanan وعلى وصحبه وسلم تسليما طرفة مجددين في التوسط كخازئين طرفة مجددين في توسط أسماء مفضلين ربنا بهم ابن القاسم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وهم السيس الدوام daan ci gis ndax ñun ñu ngi ci dugg le 15 mars 2017 defagul ci un waaye tey xam nañ ci loo xamante ni nit dem na ci daara sax te xamewu ko fa jëlee nañ ci ak yokkute goo xamante ni nit dox na ay jéego yu sori te amu ko ndax gën nanoo xam fan la ñuy teg suñu tànk ci yoonu Serigne Touba wi gën nañ xam tamit naka la ñuy liggéeyalee Serigne Touba waaye gën nañoo xamal tamit kan mooy Serigne Touba ndax dañoo amul lu dul liggéeyal Serigne Touba bii. ñuy sant mbokki jullit yi nga xamante ne ñoo jiite kuréel gi yëpp rek ku ci mel ni jëwriñ Mbay Fay mi nga xam ni moo jiite kuréel gi waaye Serigne Mouride Dione mi nga xam ni tamit mooy soppe kuréel gi ñu ngi koy bégee bu baax ak Serigne na Aliou mi nga xam ne moom moo yore programme bi mu mel ni dañuy ubbi rek wax ci turu soxna yi incha allahu rabbi ci kanam dinañ ñëw ak ay leeral ci baatu kuréel gi incha allahu rabbi mu mel ni durus nañ fi ay xasida nañ fi ay alquran ñaanal ci tamit suñu wayjur woowu nga xam ne mooy sëñ Abdullahi Jonn di ko ñaanal yàlla lépp lu fi durus ci xasidaat alquran yàlla na ko fekk ci jannatul firdaws ci barke cheikhuna cheikh Mouhamad Fadal di ziyaare ñëpp man nag maay soxna Ndogoy ñu gën ma xam ci bëgg fàllu ma dëkk fee ci Touba Kër Mallé nekk ci Sébikotane yore fa daara alquran di fa jàngale bëgguma nag ku dul Serigne Touba yaakaaruma it ku dul Serigne Touba soppuma ku dul Serigne Fallou Mbacké waaye bëgguma it lu dul kuréel xidmatul xadim ndax ci kuréel xidmatul xadim gii ci laa yëgee ak yokkute boo xamante ni musuma koo yëg ba ma juddoo ba léegi ndax kuréel gi dafa nekk kuréel boo xam ne boo bëggee jàng danga jàngale soo bëggee jàng tamit danga xam boo bëggee jàngale danga fu am yoo jàngal kuréel la boo xam ne daal yemul ci kuréelu whatsapp rek mais mun nañ ni daara la ndax minal xadimi ilal xadimi la benn image bu bon ñu ko dugal ci kuréel gi benn ay wax yoo xamante ni yu juge ca àll bala yu ñu leeru ñu ko fi dugal lépp luñ ñuy def ci jàng lay doon ak jàngale ak liggéeyal Serigne Touba kon dañuy ñaan yàlla lépp lu ñuy liggéey ñu dëppoo ci ak tawféexu Serigne Touba duma daaneel sama kàddu nag te santuma ki nga xamante ni ginnaaw yàlla suñu borom moom moo ma dugal kuréel gi ñu Serigne Ndiane Dione ndax olof day wax ni tàgge boo gis am na jàppal diw te man lam yashkuri naasa laa yashkurullah ku santul nit sant yàlla kon Serigne Dia maa lay sant bu baax di la gërëm ndax lii nii day mooy kaay yu jariñu kaay yu liggéeyal Serigne Touba mooy kaay yu jariñu ndax Serigne Touba day liggéeyal ko mooy lem waxoon ni wallahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri sa naf'in bilaa darari comme Serigne Touba nag mooy njëriñ lu àndut ak lor lépp lu ñuy def yàlla bu ci gis suñu bopp te yàlla nañ ci dëppoo tawféex Serigne Touba di ñaan yàlla suñu kuréel gi yàlla na sut mbooleem kuréeli xidmatul xadim yëpp yàlla na bokk ci liggéey bi nga xam ni Serigne Touba nangul na ko boppam te bu ko nangoo mu fulal ñu ko ci barkeb Serigne Fallou Mbacké wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin dañ doon leeral la dinañ ñëw joxe suñu participation ci li nga xam ni moom la ñu sos bis bi incha allahu rabbi. liggéey bi euh, def jàmbaar def yaay faal boo xam ne wax ci moom sax day day xaw a def si wax dëgg yàlla mu koy tuub waaye jàmbaar la lool kon ñu gën leen leerale rek moom si dina ñëw war a waxtaan ñun ci dem boo xam ne mooy yàqu yàqu jamono moom dina ci waxtaan waaye sëriñ mu doon itam. am na thème bu mu war a waxtaanee muy lan mooy murid saadix ak wan yoon lañu ba doon am gaatu murid saadix waaye soxna koy sa mi war a waxtaan ci yàqu yàqu jamono moom li itam wax wan yoon la ñu mën aw ba mucc ca kon bu ko defee yooyu itam mu ngi kanam ak mbokki taalibe yi ku mel ne si Mamadou Sine Akassa mu ngi fi dana jàng si liggéey bi waa kuréel Xidmatul Xaadim seen kuréel gi dina jàng waaye kon loo xam ne waa Nuur Daara ni teew nañu fi. dana nu bu sooba yàlla waaye wakaana xakkan waa safinatul amaan bu xakk ak mboolem daayir yi nga xam ne ñoo ci tudd Pambal képp rek ku mel ni Seydina Omar ngi topp si gannaaw di waaj kon bu ko defee euh, yu may ñu mën a yëwi ñaan Serigne Touba ñu fekkee ko diwén ak jàmm bari Serigne Touba kon xam naa fi ñu ko ñëwee ci liggéey bi rek danañ jox euh, Serigne Cheikh Mbaye moom sëñ Atex na nga koy jéggalu baax mbay di jéggalu baax ci toogaay bu yàgg bi kon bu ko defee moom dañuy daal di joxe kàddu gi li ñu soñoon la ñu soñoon de mooy mbokk ta ربنا

doon naan fa ni ñibbe la ilaha illallah rabbana la ilaha illallah fal la ilaha illallah fal Cheikh Ibra la ilaha illallah la ilaha illallah borom jànni la ilaha ba faal xotti leer faal Cheikh Ibra leeri leer faal ni waa doonu reer faal dunna reer faal Cheikh Ibra mbigum jaam lépp yawaa laa ilaaha illallaah Cheikh Ibra laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah faal ñoo ngi ñaan faal ci sa mbaa faal Cheikh Ibra yàlla jaam yépp texe ñoo ngi ñaan faal dal ñaan yaram ajo jaam yépp fajo ridan rahmatan minallahi badi maa ngi tudd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima barke Xaadim Rasul barke Cheikh Ibrahima Fall barke Cheikh Ali Mbaye bi borom daara ji mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu nuyu lislaam bala may dugg ci waxtaan bi ñaan képp koo xam ne si yaa ngi ci biti baas bi képp koo xam ne si bëgg nga bu ëllëgee li waawul xam di bi xam ne bu dugg biir baas bi ndax foofa kat baas booba moo lay dimbali dafa la ñuy fekk sëñ Tuubaa bi nga xam ne bëgg ni ku dul moom gëmuñu it ku dul moom maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëñ Aliou Dione mi toog di jiitul dëkk bi di koo xam ne dafa bokk ci magi murid yi di koo xam ne dafa liggéeyal waatu liggéeyal Serigne Touba ba mu gërëm ko ba yegg si ci sunu jëmm yu ndaw yi di leen nuyu itam ci barkeb daayira bi xidmatul xadim di siyaare sëriñ Njaam Jom ak sëriñ Modou Xaban ak sëriñ Yus ak sëriñ Alxaji Jom maa ngi siyaare magi taalibu yëpp bàyyiwuma kenn fii nag dañ fee daje ngir yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jëmmi seexul xadim ak seex Ibra Fall yenn jëmm dajale ñu fi muy magum murit di ko bëggoon yàlla ak yonent bi di julit xàqan di taalibi xàqan sadiq muy sëriñ Abdoulaye Diop amuñu ci moom lu ñuy tiit ca fa mu jëm. di nuyu itam suñu mbokk yi Touba Italie ñooñu di nuyu bu baax gis na seen liggéey ak seen taxawaay waaye Touba Maroc itam naka noonu Touba Mauritanie naka noonu kazalik kon daal ñu nuyu itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci pays yi nga xam ne ñoo a sori rawatina ñi nga xam ne ñoo ngi sowu gi waaye ngant ak xat-xat téye leen mën mënuñu yegg si bërëb bi ñoo ngi di jooy ak sat ndax kenn ku ne ngi woote di di tuub bu baax ci bi yi ñàkk teew gi waaye xam ne ni it jamono mu toll ak xat-xat yu bëri kon ñu mën a kii fasaale bu baax di ñaan suñu borom dafa leen jàmm lépp lu ñu fa juróon lu ñu roone si bis bi yàlla bu leen si kenn ëppale waaw kon bu ko defee rek ñu daal di jublu ci li nga xam ne mooy programme bis bi waaw ñu ndokkeel bu baax suñu jànkat yi nga xam ne wax dëgg yàlla kenn mënu si xam ne kenn mënu si ndax wax dëgg yàlla ku mel ni eh, Serigne Mamadou si ak sa wax dëgg yàlla eh, maanaam rek la taal na taal bi ci ci ci kàddu yoon solo yi moom wax dëgg yàlla te bu teewlu boo soññeekuwul man xam nga xam nga lan moo lay soññ. man kasaalika dem Seydina Omar ak kalimatul xaq bi nga xam ne bu sell di ndokkeel bu baax kuréel yi fa jot a jaar yëpp waaye di seere baax sunu Seyda eh, na koy caam ak marché am solo yi ñu ko ci ndokkeel baax di ko siyaare di rafetlu kàddu allah. kon bokk na ci li nga xam ne yàlla dogal na dañoo bëggoon ñu wax ci di parmi doon kat moo ko tëgg waaye waajoon na yeesoon na ba noppi waaye doomu aadama noonu la ko suñu bi bindee kon wax dëgg yàlla waxtu ne mu ngi woote di nemmee ko bés bi kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax waaye di siyaare waa Touba Kees di siyaare waa waa mbokki kër mbay yi waaye kër Baba Alima ñu ngi koy ndokkeel baax di ko siyaare waaye sëñ Xaalim Ngay fa Touba Ndiafu ak mboolem ci àndal ñu ngi la ñu nuyu xat-xat rek moo tax mbokk taalibe yi bari egsi wul waaye fasal leen ci bu baax a baax baax ndax kenn ku ne gis na gis nañ sa yitte ak sa ci bis waaye li nga xam ne moo taxoon itam mbokk taalibe yi yónni ñu ko ndax dañoo ñoo yóbbante rek ñu war a leeral ndax sunu jëwri ñu ngi toog jàkkaarloog man li may wax moom moo gën xam fuuf di bàyyi Ibrahima Diop mi toog si Youssou Baye Fall kon li may wax ñoo moo gën xam waaye nag rek bu ñu yóbbantee rek li nga xam nga xam rek mooy matal kon kuréelu xet bu dul xat yi di soppi Serigne Mour Diop nga wax dëgg yàlla ñun dañoo am loo xam ne daf ñoo jombe ndax loo xam ne da nga ko bëggoon da ko jéggaani suñuy magum taalibe di suñu waajur ñoo fi nekkoon di jënd ab nabi lay wax waaye suñu moom dogal mu ñëw si seen ginnaaw nga gis ndaw dund xasaayid yi fees xam-xam am yéene wàcce boppam ànd ak ñëpp suñ mu man dama ne baawul kenn ak nu mu toll boo ko ñaan gudd fan gànd ak wér ñun de bàyyiwul ko daan noo moom de ba muy waree 4-4 yëpp ci ay jànkatam fu nekk mu fay jàng passeport diplomatique lañ ko bëggal barke Sëriñ Saliou Mbacké te bàyyi woon ko dana am de waaw ah, kon ñun ñëpp dañoo bàyyi xel loolu kon kuréel gi yàlla dogal na ba ñu toogee ba mel ni lu ci xalaat comme dégg nañ ay soppe yi nangam ak nangam comme na ko si Mamar waxee rek waaw loolu ñu muñ fi nekkee léegi tamit koo xam ne kii mu ngi suñu biir di dund xaside yi da dox yéene gi ñu am rek mooy yéene gi ñu am rek mooy fay rek fépp ñu dégg jàngat ñu dégg ko fa loolu bokk na ci li tax il faut dëkku leen la ca dooleel mooy fexe ba dëkk yi nga xam ne ñoo wër lixaar di 21 villages ñaar fukki dëkk ak benn foog ñu yi mokk lu mu wax ci ko Serigne Touba ba gone yi ñu fexe éduquer leen ci liggéeyu Serigne bi fexe fexe xemmeem la leen Serigne bi. fayda ci ñoom sëriñ bi ndax gone yu mel nii bu ñu ñëwee fekk fekk ñëpp mel nii seen mag ak ñi ci topp kon boo ñëwee gone yii li ñu am nag mooy saa boo màggee ma ne bëgg naa mel ni Baye Dany ma ne li ma def neex na ma mu daal la ci roy kon loolu ak ak defar la boo xam ne dañ ko xeeb waaye lu lu lu yéeme nga noonu kon nañ ci góorgóorlu bu baax jotaay yi nay bari xale yi ñu leen ci woo te bu leen ci woo bu leen kenn xatal. xale day bàyyi am seen liberté totale loolu moo leen di may moo ne di encouragé ci liggéey bi kon loolu bokk na ci li tax ñu nga xam ne dañoo fondé ndax xam nañ kooku xam ne bari na waaye yéen li ñu naan rek mooy fee ba tudd li xalaat di bàmmaal dëkk yëpp mokk rumbax laa wax ci liggéeyu Serigne Touba loolu la si Cheikh wax sànq Serigne Saliou mi waxoon na jox leen ma ndaw ñi ma def ñoom ne Serigne Touba defoon ca mag ñi waaye doon yëllu moo ma barkeeloo kii woo ne xelaaw fa de daan naaw dal ma waaye doonul lu ma jiwoo du ma du lu ma sëriñ Tuubaa lay ëllëg mooy sëriñ Saliou Mbacké kon boogee li mu ñaan ci nawet bi yàlla bu mu jub yàlla bu mu ëmb kon kuréel gi yaa dogal ñu ànd ak ci suñu jigéen ñu baax ndeysaan ñu suñu gën a xam ñu ngi sonn ko càmmaayee ndax jàng ci dikk bëgg jàng fekk ñu la mën a jàngal waaye képp koo xam ne da nga bëgg a jàngale fekk fi ñu ñaaw ñu néew xam-xam bu mel ne man nga dimbaleen kon liggéey bi noonu képp lañ ko taxawee kuréelu Xidmatul Xadim nag na comme ni ma ko waxee bindee ba xalaat ci yàlla dimbalu kat ñu waxtaan ci daanaka damay faral di wax ne sëñ Abdoulaye Dior mii toog day faral di gisee bu yoo yoxee rek kon bu sëñ Abdoulaye yow yaa fi toogoon muy xalaat lii yaa fi toogoon ni ko baasi lii sëñ kon loolu lépp yàlla dogal mu nekk ñetti fan ci weeru ñett fan ci ci Koré lan ko doon di atum 2006 dama ko dagul ci ci Koré boobu waaye 2016 ñetti fan ci weeru Koré la ñu commencé kuréel fii ci Touba kii bi. bàyyi fa ànd ko ci gën gi si ginnaaw dañ ko defee ci bàyyil boobu benn benn basan ma ñaar jigéen ñi fi mu toog ak góor yi waaye mbooloo ma fa dajewoon booy noonu wàññi du ma sa ñaar fukki nit. wala boo su ma def fukki na juróom ndax ca lay yem waaye booba yéen li ñu naan rek jàngat bi si moom dem ba bu kawe jot ñu def fa ay mbooloo dañuy romb sax dem ko ñëw xamuñu sax nii lu leen yëkkati bariwul na ci de dañoo romboon di dem rek waaye xamuñu nii toog lan moo leen mbokk taal bi toog foofu yi sànni la sa sànni sànni. fas yéene li fekk noo ngi dund kuréel gi dana dox mu am lu fekkee ko mu am ña fekkee dana jëriñ bay jëriñuwaat kon ñu am ne kuréel gi mu ngi commencé atum 2016 ci ñetti fan ci weeru koor ba tey jii muy le 5 janvier 2019 tey jii mu nekk sunu deuxième édition ci liggéey bi taw fii dana wax dëgg yàlla. ndax ba ko commencé foog naa ah, dañuy dajee ci ay dëkk-dëkk di dem waaye bii mooy ñaareelu édition bi nga xam ne def na lépp ci liggéeyu sëriñ ak di am yéene mu kawe kuréel gi nag bunt yëpp ci jëgu ndax yéene am sànq ko comme ni ma ko waxee fexe ba dëkk yëpp moo ko rumb ci liggéeyu sëriñ kon duñ ci xatal kenn am nañu bunt yëpp ci jëgu na am na jëwriñ jafa ne mooy re wala wàllu liggéey bi foofu Touba Ndiafour sëñ Xaarim Gueye moo fa képp ku boofu ku bëgg a tàbbi ci moom ngay jaare yegg si boo demee ba ba Touba Pambal jëri Abdoulahi Mbaye mu ngi fi ak maam ci àll ak mboolem ñam ñam ci àll Touba Kéwél gi sëñ Youssou Ba Ibrahima Dione mi toog ak sëñ Abdoulahi Dione mi Touba Mbar bu daali mi soxna Ngóoni toog moo fa jëwriñ ak soxna Mariam Touba tasawur di Cheikh Anta Bapat soxna Kourou Ngom ak soxna Yacine Ciss ak sëñ Mamadou Akasa seen jëwriñ ñoo fa dina fa taxaw liggéey bi. ba tubaa ba Touba Mare bu Moussa Serigne Cambay John ak sëñ Halim Faye yegg si ci bërëb bi waaye ñoom ñooy taxawal wàllu liggéey bi foofu. tubaa Mare loo ko Serigne Malick Thiaw ngi fi ak Serigne Matar Thiaw ak soxna Ndeye Thiaw ak Bac Sama Samb nga xool boo dee ba Touba Miftaw Saada suñu jëm bopp ji la ci galfan ak Serigne Abdou Métoog ak Mame Cheikh Métoog ak mboolem ñi ñu ci àndal. Touba wa Kaana kan duñaan Serigne Moussa Mbaye ngi ak sunu jëw sëñ Gure Mbaye nekk jëwriñ joo xam ne ma leeral leen foofu wax dëgg yàlla jàmbaar lool si bi yàlla bi rek ñoom daa tey yaa ngi suuf ci bés bi waaye léppam bés ko ñaanal gudd fan gàllankoor ba yéenam ci dëkk bi ak li xaar boo nee ba Touba Kaaraan sëñ Xaadim Thiaw moo la fa nekkal waaye Touba xàq safetu amaan sëriñ Habib fi ak si mbal fa rek taxawee liggéey kon boo demee dem ba Touba Teranga yi Indaan sëriñ Aale Thiaw sëriñ Babacar ak sëriñ Mour Dior ma fa ne ñoo taxawee wàllum liggéey bi Touba Kër Halim sëriñ Abdou Gouma yi mi toog yore micro bi moo fa taxawee wàllum liggéey bi. ba Touba Kër Mbaye soxna nga soxna si toogoon fii moo ko taw tax wàllu wàllu liggéey ndax bu déggee ma ma koy seetlee nii pour képp koo xam ne kii sori nga te nga bëgg a tàbbi si kuréel nga ne fa daanaka si moom rek léegi léegi si yoon wu gaaw boo demee ci réew yi itam am na bu fa ne kenn ku ne kon duñ ci duñ mooy bat yaa ngi fi carte membre yaa ngi fi képp ku bëgg a ci liggéey. na nga ñëw tàbbi ci liggéey bi bu dépp ci jéggul xajaluñ ci kenn jigéen foo mën a nekk xéemul yéemul ak koo mën a dox ndax liggéeyu sëriñ boo xasee nekk ci xidmatul xadim amatul mag amatul amatul rakk amatul keneen xam nga ma am sëriñ Tuubaa foofu lenn rek doomu aadama di war a sàmmoon diggante moromam muy jéggi waaye bu daw mu maa la mag wala sama rakk nga ne déedéet amul ci liggéeyu sëriñ Tuubaa cër rek moo am ak loo xam ne tekki rek képp koo gis bu koy utiliser baat moo gën a umpale Serigne Touba bu baax ci liggéeyu Serigne ndax damay résumé rek tënk ko noonu xam ne liggéey bi menal xaddi bi elal bi la seetlu lu ca dab dab dab ndegu Serigne bi bii Touba Pambal ñu fas yéene ko ànd suñu dànkar bi di Serigne Goutte Diop ñaanu gudd fan ko ànd wér di siyaare bu baax a baax waaw di ndokkeel mbokki dëkk bi ndax kuréel gi wax kenn ku ne xam na mboolo mbooloo bi ñëw na waaye li fi nekk yëpp mënuñu ko waa dëgg bi bu ñëwee depuis biig ba léegi bu ñëwee ñoom ñoom lañ fekk biig suuf ñu nekk ci wàccaay fanat xëyat nekkat ci te ñoo ngi ci ànd ak ñun di toggal xéwal yu am solo yi ndax Serigne Saliou Mbacke li moo am suñu mbéyto de teg Serigne Mbacke dafa ne ah Mbacke loolu rek sant mun ko du mun ko jàppale ak cant day mooy ren di berne toog ko sa ñam yu neex di ko séddale bu ci am xaj ak seen boo noppee taxaw si digg wax xéwal yi su moo defal balaa ngay sant ci loolu lañ doxee si bis bi kon ñoo ngi sant bu baax di ndokkeel mbokk taalibe bépp di saare jigéen ñi wax dëgg yàlla dëkk bi diine na jàppale si liggéey bi ñoo ngi ñaan foo mën a nekk yàlla ngi yàlla bi képp ku am borom kër bi yàlla yàlla yàlla yàlla suñu borom gën a boole ak moom ngir liggéeyal Serigne Touba jabar gu góor ak bu jigéen sosoo ci lépp day muur sare bu ko amagul nag ñu la koy ñaanal góor yàlla yaa ngi fi dawuñu bàyyiwuñu nañu jubloo ci liggéey Serigne bi. jëwriñ ana kàddu yu ma yónnee woon bisimilah Mbacke. maa ko doon tudd damaa yeggagul waaye jëwriñ tudd na ko tuddaat na. nee na mbokk taalibe yéen a ngi si daal ci sa bët teg sa ñëw sa rëbb la dëgg baax yow yaa ko doon wax te. jëriñ ndani. waaw. ndax wax dëgg yàlla li mu wax ngeen may ma tuuti rek ndax dafa am lu may leeral foofu tuuti ndax boo déggee ab dayu ne sëriñ si Ahmadou Mbacké daan defaat moo xam ca dayu jur na jaaf social. na léegi bu ci gën a yées lay lay lay waxee deuxième ko mooy social dimbalante te lépp lépp ci daara comme ni ko soxna nga càmmee loo mën a xewle ci kaw suuf muy bànneex mooy nakar danañ ko àndee bu mu jeex luñ ci am na ci ngi jëm Serigne Touba waaw waaye nañu xanaa dox ci Serigne bi yeewuñu kenn mu ngi ñëw danaa jàng yegg na Serigne Mour Diop itam boo noppee da nga def waxtaan wi incha allah kon ak mu yeneen mbokk sàll bi ci topp waaye ni mu ko waxee ab day ba bokk ci li nga xam ne da koy gàllankoor su ma leen ba sori mooy bàyyi soxna yëpp dem ñoom moom ay faar lañ ci liggéey kon dañ leen foofu bu baax a baax kon dugg naa ba xam naa ba pël naa woo xam naa ba sori xataa ba rek naa wa sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh kullu muslimin barke Cheikhul Khadim